parce que dafa am lu xew ci fan yi passé Ziguinchor mu doon loo xam ne lu ñuy naqarlu lu ñu métti parce que tey soo seetee biir Sénégal dañu mel ni Ousmane Sonko rek moo fi adversaire te pourtant am na ay morom yu bëri nekk ci terrain bi mais jógee Ousmane Sonko jógee Dakar ñëw egg si biir Ziguinchor quand Doudou Ka dem di ko attaqué biir Ziguinchor bëgg ko wan ne dëkkul Ziguinchor daf ñu métti te muy or que muy feefam parce que fii bi bu ñu nee département bi ñoo ne rek dañu ne région de Ziguinchor kon Ousmane Sonko fii la dëkk te fii la mën a yëkkati ko pour wan boppam xam ci lu mu toll ak fan la nekk mais quant à yeneen camp Doudou Ka mi nga xam ne ne Bessir la dëkk ko moom Ousmane Sonko ñëw di ko attaqué biir Ziguinchor dafa doon lu ñu métti neexuñu naqaru nañ ko ba fu naqaru yem te ñu ngi koy wax ne ko na xam boppam parce que nit ki dafa am foo xam ne boo fa tollee dañ lay fàttali sa démb te bëgguñu egg moom foofu. parce que su fekkente ne li muy woote dëgg la ne ñun ko jur na xam boppam te toog place am xaar bu waxtoom jotee rek dina jóg fi mu ne nii waxtu Ousmane Sonko moo jot yàllaa ko yëkkati génnee ko kon Doudou Ka na toog xaar place am xaar waxtoom te mu bàyyi ko tout tranquille ñu ngi koy wax nag loo xam ne ne bu reppee ba jéemaat ko su ko su ko defaatee dinañ ko won ñun ñooy kan Ousmane Sonko du ko ñuy bàyyi ñu koy xool ñun ñu koy caaxaane di ko saax saaxee de nanguñu ko te bëgguñu ko te ko def ñun ñoo bañ ba lànk tëdd ci naaj bi. bañ bëggee nag jàmm am biir Sénégal te ñun jàmm boobu la ñuy woote parce que ñun ay nitu jàmm lañ nañ ko bàyyi tout tranquillement te nañ ko jox liberté totalam lañ bëgg parce que ba fa mu nekk nii tey ñii ñu ngi wax ci li ñuy wax nii tey mu ngi ñu ngi ko garder casier judiciaire mu ngi ak moom parce que mu ngi xam ah contrôle judiciaire ci biir contrôle judiciaire boobu jox ñu ko ay euh, euh, passeport am mënul dem fenn mu ngi biir Sénégal dañoo bëgg ñu delloo ko lépp li mu moom mu doon Ousmane Sonko ma woon di doxi ay soxlaam comme militant Sénégal yi ni ñu doxee seen soxla il n'a ka arrêter dafa doy parce que nit ay nit mënuñoo bootu ci ginnaawam pour yónni ko pour mu ñëw def lii muy def lii muy def nag yoo xam nañ ko yëpp enjeu yi muy def nii yëpp xam nañ ko na arrêté bëgguñu ko tey bëgguñu ko suba te bu mu ñaar bu mu ñaar na dakk bu mu ñaar soxlawuñu ko. parce que moom doomi bu dee dëgg la li muy woote ne moom doomi Casamance la kon moom warul ñëw pour indi xeex ci biir Casamance pour jaxase ko li Casamance dund dafa doy. jàmm la ñuy woote te jàmm boobu la bëgg mu sax fi ba keroog bu ko yàlla di teg 2024 moom président Ousmane Sonko ñu xool lan la mënee ak ban système la bëgg mu ñuy changé parce que dañoo sonn